mbokki xarit yi asalaamaaleykum dalee nag jàmm ci seen jotaay xibaar yu euh, tey yemook euh, ñaar fukk ak juróom ci weeru avril 2024 ñu tàmbali ak euh, nomination yi nga xamante ne tàmbali na ak ay poste direction générale yoo xamante ne ñu ngi koy commencé di tabb ñaar ci ay soxna nag xam nañu fa ñu féete kii di Marie Rose Faye ak yaay Khadijatou Jamila Diallo ñoom ñaar nag di ay jigéen yi nga xamante ne ñooy ñaar ñi njëkk a ci nguuru président de la République Bassirou Diomaye Faye Marie Rose kon fay ak yaay Khadijatou Jamila Diallo Euh, ku ki euh, nak di euh, Marie-Rose Faye ñu ni mom direction générale de l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises de ADPM Marie-Rose Faye nak experte en gestion et en management des ressources humaines bu nekkee nag ki nga xamante spécialiste en droit des affaires de Yaay Xarijatou Jamila Diallo moom nekk directrice générale de l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits ñu remplacer Idrissa Diabira ak Maymouna Sissoko dañuy wax ci assemblée nationale ak li nga xamante ne moo bloqué euh, delloo ko ñi nga xam mooy ay ancien ministre te ñu tabool leen euh, bu nekkee nag euh, kon ñi ñi xam ne dañoo nekkoon ay député ñu tabb leen ci day nguuru bu mujj ci ki nga xamante ne mooy Macky Sall ñoom nag bi nguur gi daanoo dañoo bëggoon a dellu ca assemblée nationale ngir siéger daan jot nañoo sax bind li nga xamante ne mooy ab lettre daal di koy adressé Amadou Mame di président assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci Les Échos waaye nag ñoom danañu xaarandi bu baax a baax ndaxte bu ñu sukkandikoo ci journal bi article article 54 bu constitution la mu xam moy député bu ñu nommé nommé membre du gouvernement mënatul le siéger ci assemblée nationale euh, durant euh, fonction euh, ministérielle bobé wayé nak loi organique bobu complété wuñu ko ba fixé modalité yi nga xamante ne lañ koy appliquer ba taxna du gouvernement bi du kenn ko xamanté rek porté won na projet bi ngir fexe ba ñu bu ñu ñàkkee seen ndombal ministre ñu mëna a delluwaat ci assemblée nationale lolé tax ba ancien député bi nekkit expert électoral di Alioune soirée di xam ne ni kon ba tey ñoom seen dellu si dina jafe lool ndaxte député yi nekkon ministre ci gouvernement Macky wàll kon ñoom nañ xam ni euh, perte nañ seen siège ka koy ña koy jëriñoo mooy seeni euh, suppléant dañu dellu ca cour suprême bi yoon wax ci décret bi nga xamante ne euh, président Bassirou Diomaye Faye annulé na ko décret yi euh, ne ko ba léegi euh, nga xamante mooy conseil supérieur de la magistrature daal nañ koy entériné maanaam maanaam dëggal ko euh, conseil de la euh, magistrature boo xam ne sax moom njiitu réew mi fi nekkoon Macky Sall moo ko présidé woon waaye nag euh, moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bi mu egsee dafa daal di rek daal di kon annulé décret boobu noonu mu def nag bruit bu bëri ci biir magistrature waaye bu sukkandikoo ci Les Échos yenn ci ay magistrat dañoo regretté ñàkkug respect parallélisme des formes maanaam jaar ci yoon bi mu jaar ngir annulé décret boobu waaye nag am na ci ay magistrats Euh, suuf ba tey di xam ni euh, magistrat yi euh, nañu ki président bi invoqué ki nga xamante ni mënul prétendre diriger cour suprême puisque nekkul ki ci gën Siré Ali les nag la mu juridiction président sortant bi Jean-Louis Toupane moo ko diriger ancien président première chambre sociale. ginnaaw bi mu tegalee lu toll si juróomi defet Papa Boy Djiné nag doon ko na xaar bu baax a baax ci euh, li nga xamante ne mooy làmbam bi doon dox ni ki dimanche ci arène nationale euh, ci kawam euh, ci digganteem ak Jokkel moom nag kon dafa daal di daanuwaat beneen yoon tax ba kii di kon rek soxnaam di Ndeye Gueye di dund li nga xam mooy situation boobu muy lu metti ci moom di tax ñaan ki nga xam mooy borom këram mu daal rek tekki ngembam ginnaaw nag muy xam ne ni balaa muy di boobu daal nay laaj permission ki nga borom këram ngir mu mën koo rek euh, daal di jox euh, kon rek euh, permission ngir mu génn ci presse bi waaye nag li mu xam ne mooy ni li muy def mooy baalu bu baax sénégalais yi waaye baalu ak itamit ñi nga xam mooy ay supporteru Papa Sow di wax ni Papa dafa investir bu baax a baax ci combat bi ngir am ci victoire def na li mu waroon def yëpp waaye nag moom li mu xalaat mooy dafa war a bàyyi làmb ndéygay di ci xalaat ni moom li mu bëgg mooy rek bi mu analyser situation mooy na bàyyi bëre ndaxte affaire dafa metti mi ngi dund ay situation bu méttee métti Papa xam ne ni dina la toll ci fukki blogu billet eh, ci arène nationale feesal ko bu baax a baax waaye tamit eh, loolu day wane rek nan la ko nit ñi bëggee waaye nag eh, na arrêté li ngay làmb moom nag mi fi nekkoon fecckat di Ndeye ni kon dafa am li nga xamante ne mooy ay qualité yu am solo yoo xam ne moom borom këram di Papa Boy Djiné am na ko bokk ci ku xool bu baax ni mu préparé combat bi xool forme physique bi nga xam ne am na ko day wane nan la préparé combat bi tax mu dëddu kon njabootam dëddu itamit famem pendant ay weer ngir préparé combat combat bi euh, bu nekkee rek liggéey mooy tax a am moom dina am way nag euh, moom Ndeye Gueye di xam ne ni euh, papa ko njàmbaare la ko am courage ba bare mën li muy def waaye nag lamb ak ay tolof-tolof la kenn mënul natt ba tax moom rek li mu xamle mooy bu doon sago moom Ndeye Gueye papa Boy day bàyyi lamb ñu wax ci tàggat yaram ba tey mbokki xarit waaye bi yoon ci football lay doon wax ci demi-finale Ligue des champions CAF ak trio euh, sénégalais bi nga xam ni mooy arbitré demi-finale retour yi Ligue des champions africaine retour euh, Ligue des champions demi-finale Ligue des champions retour CAF demi-finale Ligue des champions retour CAF yi nga xam ni ñu ko waajal tey ci aljuma ji fële euh, yi ñoo ci Espérance de Tunis ale bi nag ñoom ñooñee nga xam ne mooy waa Espérance nga xam ñoo koy mooy trio arbitral bi nga xamante ne Gueye njëkk leen jiite mooy Issa nga xam ni sax mooy nekk arbitre central assisté nag par euh, ki nga xamante ne mooy Djibril Camara ak Nouha Bangoura Issa Sy nag euh, bokkoon na ci Coupe d'Afrique bi nga xamante ne moo amoon ca Côte d'Ivoire euh, moom moo arbitré woon match bi nga xamante ne moo doon dox ci diggante Angola ak Algérie wala Algérie ak Angola ñu timboo woon ku nekk dugaloon sa borom benn bit beneen demi final bi nag mbokki xarit yi ñu fàttali ni dina dox ci diggante a Ahli bu Égypte ak TP nga xamante ne Sénégalais yi di coach Lamine Ndiaye fa la nekk ak gardien de but bu Sénégal bii Badara Fati match boobu nag euh, ñu ngi koy joué euh, ca Caire euh, ki koy dirigé nag mooy Kenya bii di Peter Waweru mbokki xarit yi loolu la fa woon ci xibaar di leen jox dig daje très prochainement pour beneen jotaay xibaar d'ici là portez-vous bien au revoir portez-vous bien